jaay sama gars yi ba léegi ci SSSP mais ba léegi maa ngi ci title yi quoi parce que ne woon naa Omar dafa ñëw indi Omar Pène ak Omar Pène mais gis naa ñuy jàngoon ñu naan deux titres Omar Pène Omar Pène Pène mooy méthode en anglais les mots quoi tu vois donc Omar euh, Omzo il faut nga am level pour chronique ko boo gisee mu ne la Lat Prada Lat Dior la ko jëlee quoi mais Dior bi Lat joor bi dafa jël joor bi santu Lat Dior bi jël ko def ko Prada mais marque bi la ko jël allusion quoi dafa comparaison mu jël Lat Dior Christian Dio Dio comme ñu pop smoke Marco Dior bi mu ne du ma def Lat Dior day day simple quoi ba am punchline ko def ko Lat Prada freestyle quoi nam seen donc foo ay marque la mënoon na ko def Lat Lat Lat Gucci wala mu def ko Lat Adidas wala Lat Puma mais mu ne Lat Prada ñu am seen freestyle pour ñu naan lan mooy Lat Prada Lat Dior bi la jël ah suñu kii boobu suñu maam ju brave noonu joor bi mais mu daw yëpp ko si marque joor ñu bopp sama Christian Dio Dio ne Lat Prada freestyle dinaa am seen koo koy Omzo Dollar foog nga am bopp pour chronique bi Bernard naa leen ko naan mais dama koy làq pour l'instant quoi parce que démb lañu signé contrat bi Omzo Dollar SSP yaa ngi